non man mooma du manipuler du ko wax xam nga manipuler ñi koy wax toujours mooy ñi koy def mhm. man du wax manipuler xam nga lu may wax sénégalais yi dofuñu te xale yi aussi dañu dañu dañu mûr lu ñu bëgg-bëgg nit dañuy xool loo xam ne ëllëg seen intérêt daf ciy nekk ñu xam ko mhm. te premier ministre ni mu doxali nii doxali nu cuune la doxali nu cuune mooy wax loo xam ne contradiction yi ci biir wax ji yëguma ko woon lu toll ni premier ministre mhm. nga xam ne ku ne xam na ni mooy ndayu ndayu gouvernement président de la république bu waxee moom lay waxal moom mooy jox instruction wala moom mooy jox ay xalaatam ay ministre am mm-hmm. ku mel ni ministre de l'intérieur bii fi nekk nga xam ne tey général de l'armée la amul caaxaan kooku xalaat nga ni nit war na koo mën a bañ a yëgal loo xam ne depuis le 7 mais loo xam ne bind nga ko ne da koy def nga naan yëguma ko woon dem ba ci biir nga naan commande euh, euh, collectivité locale yi nga demaat ba ci biir ne euh, président bi daf maa woo ne ma li ngay dégg lan la mm-hmm. ñeenti wax yu bokkul dafa am loo xam ne dëgg bi dafay am loo xam ne day lëndëm ci xelu nit ñi jàpp ne toujours mi ngi ci opposition. ah léegi qu'est-ce qui se moo nekk di feeñ nii wala xët-xëtam gi ne ci lay doxal ba tey. non dafa jaawale fi mu toll nii mbubbu premier ministre la jaawale ak mbubbu opposition loolu nag dama koy interpeller léegi. di ko mm-hmm. delloosi à la raison. wax ko ne ko moom yàlla bu fekkoon ne far na yàlla faral na ko. ni ko yàlla farale mooy lëm doon wut am na ko mhm. kon dafa war a summi mbubbu opposition bi mu yor jël mbubbu premier ministre bi nga xam ne ay nawleem yi fi jaar noonu la ñu def nga xam ne tey am na nu muy demee noo xam ne lii muy def nii yëpp pour jouer la pour foo dafa nekk daal dafa bind daal ku maturul daal man en réalité loolu laa ko jàpp. Mhm. et puis nag état dafa yomb torop nga nga nga dànd état di xas état. di <laughs> dànd état di wax lu nekk état boo ci duggee ci biir ngay xam luy état. dama defe ne nag dafa xamul woon réalité yi ngi doog xam réalité yi. Ah.